برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضه mbokk yi jamono yi Baol Média FM mi ngi lëkkaloog Baol Média FM 2 ñuy ànd ak ci waxtaan yu am solo yii su ngeen ñu bëggee wéy di déglu nag ànd leen ak ñun ci bi site bii di 3w point baolmedia point net wala 3w point mbacke baol point com wala sax ngeen ànd ak ñun ci tuleen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi usu ayatan la tura li xayri mujisatan baana li usni xayri dañ leen di gis ñu mel ni dañuy def neneen te dëppoowut ak xëy na ni sariya wootee wala dara lim leen tontu mooy loolu ñeent rekk ku sañ mooy boroomu may ci boroomam ak boroomu sañ-sañ ak mbaa yàlla mi kenn du bindal bàkkaar akub saay-saay ni waaja nag boo demee yow na nga màndaxale sa bopp ba xam ña ñeent yooyu ban nga ci doon <laughs> fekkee leer na la yuróog may mm. moom sañ-sañ doom baa yàlla nga xam fi nga bokk walla nga <laughs> wala nga ni xoj ci yoon jaamu yàlla te liggéey mm. wala nga xam fa nga féete moom nag ginnaaw yàlla da ko Baol Média FM jagle mm. yooyu ngay wax ci ci ci ay xar baa xam na mm. ndax da jàpp benn njëréer rek ñaan ci rek njëréer wa jublu jublu saw dégg naa nga xam ne kenn xamul yàlla rek xam fam fa mu jublu njëréer yëpp jóg topp xam ne man mii wax ak yow fàttaliku naa ay njëréer ndax booba nattaguñ dëkk bi fàtte naa at mu itam booba man taxut samay at bari sax maa ngi taxaw ci moom ci buntu baraag bi mm. ay njëréen wàcc ci dëkk bi nga xam ne garab guñ wàcc Baol Média FM lekk ba ba ba di ko ngatañ ci dàtt bi mm. daal ciy sotti lu mel ni warga ci suuf itam mm. sama kanam loolu maa ko fàttaliku waaye dafa daal di wut suuf ñaan ci ñu duy ay biñuwaar di ko di ko sotti waaye ni tuuti rek njëréen yi dañuy dër rek kenn gisatu leen am na itam lakk gu xewoon goo xam ne ma nga jóge ci boobu Cheikh Mamadou Lamine Alaaji Baara mu ngi dëkkoon ci wetu armeel yi nga xam ne moom itam maa ngi wax maa ngi wax ci fàttaliku bi ñu fàttaliku waale ci màggal gi ndax moo ko daan Baol Média FM daaw yàlla dogal mu nekk ci bisu ba mhm. ay waa këram xamal nañ ne ma dañ ko ci jàngal ay kaamil bu ñu nee suba la ba waaw ñu fàttaliku ci bu baax mhm. waaye lakk googu dikk na ba jub kër Sëñ Fallu ba kër Sëñ ma fëri Njaay mhm. bi Sëñ Fallu génnee ci buntu baraagu Sëñ Musaa gi yerwaay bi dafa daal di joxe suuf ne nañ gaaw dem sotti ko ci mbedd yi nga xam ne mbedd mu ñu sotti suuf sa rek fa la lakk gëyam waaw <laughs> yooyu yooyu moom ay bàttin li yoo xam ni daanaka jërul wax ci rajo sax waaye nag <laughs> waaw. <laughs> Baol Média FM. Eh, jërëjëf sëñ bi kon ñu ngi sant bu baax baax di gërëm yaakaar naa ne. loolu day dellu ci ñaan gi mu defoon ci marché ocas bi. Mm-hmm, mm-hmm. marché Ocass mm-hmm. historique la. ndax bi nga xamee ne bii sëñ bi dafa sañc lu Tuubaa. ñi fi nekkoon. dañoo daanaka boo yoree ay koppar doo gis loo jënd. ñi fiy jaay itam ay benn benn la nga xam ne ay kafe lañuy jor ak tuuti suukar waaye da am at du jar mm-hmm. ñu ñu wax Cheikh Massamba nag boobu mooy làmmiñu sëñ bi daanaka mm-hmm. ne ko léegi da ngay dem ànd ak dem ci sëñ bi joxe addiye ñu ñu ñaanal waa Touba mm-hmm. Baol Média FM boobu sëñ Massamba ci ñi sëñ bi saxaloon dëlën Touba la muy root ci Aynu Rahmati di ko wut ñaar fukk ak juróom bi yoo xam ne ñoo koy yor sëñ bi ci njëriñ moom lay jëfandikoo nee na mu bi ne ana la doonoon seen tànk nee na ñu ne ko ñun di Mbàkke danoo bëggoon ku ñu ñaanal ca tuubaa Touba gi ñu tudd nag daal di koy soge mu daal ne Touba de lu fa mat a def rek def naa ko nee na ñu suñ masàmba jubbanti ko ne ko kat moom ab jalañ ci jublu wala ab jaay Baol Média FM ndax day def daal li nga fay jaay day yeex a jar kii kii kii jënd itam ñaare du amul koppar wala koppar yi mu denc moom it du gis lu mu jënd waaw mu ne waaw kay ab ja kon tibbal suuf indi meñ def ci ñaan ñu ne ko nag dañoo bëgg nga ñaanal nu luy tax am mu ne lii tax am moom mi ngi mi ngi nekk ci nangoo liggéey boo nangoo liggéey bul wàcc bul yàq ku am nga am ku amul nga am nee na ñu ne kon dañoo bëgg nga ñaanal nu li ñuy jaay di jar mu ne dee leen jaay li nit ñi bëgg rek ndax yàlla ak yonent bi sax boo ko jaayee li mu bëgg mu jënd ko. Baol Média FM. mais doon leen jox ñaan googee nag ñu dikki def ko ci marché marché Ocass bi bi suñ fal nag di di yeesalaat marché bi. mu laaj ñaanu suñ Tuubaa googee fu ñu ko defoon. nee ñu ne ko ca wetu guy ga. mu joxe ak ñaan. ne leen fu ñu bëgg marché bi yem nañ ko fa nañ ko fa sotti <laughs> nga xam ne ñooñu it. xërug ñooñu. ak seen positif. dañoo jaxase ay biñuwaar topp mbeddi Tuubaa rek. fu ne ñu sotti fa suuf nga xam ne mooy bitig yu bari yi ak maa ngi seen. Baolmedias <laughs> FM. loolu yërmande ji da da dinay dikk fi <laughs> waaw. xam naa suñu kon fi ñu ciy tamit am na. léegi li mu ci jublu mooy wajlub lahal xayra minal jihaati as sitti wak fiha anil afati mu ne ginnaaw suñ tubaa da koy ñaanoon uh-huh. moom du ko yamale fenn maanaam kenn xamut fu mu yem mm-hmm. as sitti mm-hmm. wak fiha anil afati rek la waxoon moom mm-hmm. <laughs> tubarkalla kon suñ xam naa fi ñuy jëm te mu itteel lool mooy sëñ Fallou nu mu doon jaxasoo waa réew mi mm. Baol Média euh, FM tarixa yee ñi mu bokk bokkaloon lislaam beeg ak waa kër sëñ Touba yi nan leen taxawoo mm. ndax ñu ci bari am na ñoo xam ne daanaka moo ko seen taawa maase te doomu sëñ bi leen mu taxawu leen ginnaaw sëñ wi waaw loolu ni ma ko waxoon rek mooy bi nga xamee ne bi ku tedd ki dafay jóge mm. ñoom ñëpp daanaka Cheikh Moussa lañ leen jox walla ña ëpp ak ñu nga xam ne cheikh yi. Mhm. ñooy seeni taaw yëpp dañ leen a yóbbu ci kër sëñ Mouhamadou Moustapha. Mhm. bi fi bi fi sëñ Mouhamadou Moustapha jógee na ñëpp dikk ci sëñ Fallu mooy aaday yoonu murid bi. Mhm. xam ne ñoom euh, noonu ñu gëmee sëñ Tuubaa ñëpp. noonu lañ gëmee mbooleem ku bokk ci sëñ Tuubaa rawatina nag seen kilifa. nga xam ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek yow la ñuy def ngay sëñ Tuubaa xam ne loola mooy dox ba nag ni fi ñu ko defee nag moom da caa boole woon kenn ku ne mu def la ni sëñ fonk la. nga xam ne defu la sax rakk wala mu di la def leneen dalaa def jëmmi suñ tubaa def la sëriñ su ko defee maa ngi koy wax barki démb rek naa soxna may mun a mii nga xam ne moo leen fa mujj mook sama waajur wu jigéen ñoo maas yi nga xam ne moo leen boole woon di jàngal ay téere téere yi leen di jàngal moo leen jàngal ay tasawudu sixaar ak jawharun nafis ak risaala ak masaalikul jinaan ak yëpp moo leen ko jàngal ci loxoom nga xam ne fonk gum fonk suñ tubaa rek daanaka moo tax moo tax loola mu daa ko ak di ko jàngal ay xoraan alxuraan ci ay kaset ak lu ne fu ñu nekk mu fekk leen fa su ko defee di leen jox genn wàllu mbayam day xaaj mbayam def lenn li ci jumaa ji li ci des mu séddale leen ko ne leen addi suñ Tuubaa ji ma ko waroon a jox. Baol Média FM. noonu la defoon ci cheikh yëpp itam nga xam ne suñ Tuubaa di leen a meññ su ko defee ni nga xam ne mooy sëriñi tariixa yooyu yi ngay waxe ñoom ñëpp dañuy benn ndax man maa ngi ay leetar yoo xam ne. yu bari ñoom la ko daa bindanteel ci wàllug weer week wàllug ni ñu war a mànkoo doon benn ci lislaam ak di yëkkateendoo di dóorandoo ak li ñuy war a dénk Baol Média war a def lépp fi dafay réerowuñu ala jëb de fekk nañu fii ba tàyyi nga xam ne fi lay ndékkee fajar la fii ak si fi dafay ñoom ñoom ñëpp benn lañ woon fi dafay te eh, ginnaaw la mu leen daa defal it yàllaa tax daanaka jërul jërul kii sax waaye danaa jékki-jékki yónnee leen ay paas yu màkk yu bari wala mu jënd fukki oto ñaar seddali leen bu defee loola moom ñëpp teg nañ ci seen bët ku defee loola ba tey day doon ab royukaay rek. Baol Média FM. Muxtaar wax ne ay tijaan ak i murit ak yooyu bëggatu ko dégg. su defee loola mooy loola mooy ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk ay maam bokk diine ji bokk lislaam nga xam ne tubaab yi leen tàggale woon rek. te liñ leen tàggale woon it mooy bañ lislaam am doole rek. su nag loola mu mat a bàyyi xel bu baax ñuy ñuy ñuy ñuy loola bàyyi wax yu ñaaw yi ak def def def lu def lu bon waxante lu bon noonu suñ Tuubaa digle rek ne ab murit bu saxee ci xamlu ak jaamu yàlla ak fàggulu lew dafa war di dimbalante mbokkoo mbokkum jullitam ki nga xam ne yaa ko ëpp daraja wala nga makk wala nga ëpp ko alal nga yërëm ko ki la mag wala mu ëpp la daraja wala xam-xam wala alal nga war warmaal ko ki nga tollool nga def ko ni sa bopp li nga yéene sa bopp nga yéene ku ko bañ bañ a tooñ kenn te ku la tooñ nga baal ko suñ tubaa wàccoon na ak nit ñi ndax bind na bàyyi fi Baol Média FM wax ñu dégg su ko defee keneen ku def leneen nag mm-hmm. yaa ko defal sa bopp mm-hmm. waaye moom ku gëstu wala nga nangoo dégg mm-hmm. da nga dégg lam nekkoon wala nga boo mënee jàng nga gis lam bind boo munta jàng déggoo koy dégg nga yonent yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana xuluquhul moom ay yëpp alxuraan la woon ak li alxuraan digle boo déggee ñu naan ay jikkoom alxuraan la mooy li alxuraan di digle ci la nekkoon li muy tere ci la nekkoon waaw defee nag loola mooy suñ Tuubaa mooy diggam ak ñooñu itam ñi nga xam ne dañoo doonul ay Baolmedias FM gis nañ ni mu jaxasoo woon ak ñoom waaye nag duñ ko duñ ko yóbbaale dara lu demee nii maanaam ñoom dara ci diineem nanguwut ku ko laal moom mm-hmm. waaye nag du tee da leen di bàyyi ci diine seen di lakum diine ku ma lee diin maandu ci mm-hmm. su ko defee nag du tee mu war ma leen ngir àq doomu aadama mm-hmm. du tee mu di leen dimbale du tee mu di leen mu di leen tinu ci wàllu état bi wala yu mel noonu niti nguur yi itam daanaka ñëpp la woon tolloo naa nag kenn ku ne FM ak ka yaakaar ñaanam ak ka nga xam ne moo koy jàppale ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi moom lu mu mën dana la ko defal defee nag ba bi mu demee ñoom ñëpp ko témoigné lool xam ne te ñooñu doonuñu woon ay jullit bu defee loolu rek référence la bu mag. tubarkàlla xam naa suñ bi waxoon nga ci léegi eh, ne eh, ñaan am na ci solo ci bis bi bisu ñaan la kon ki nga xam ne dafa am yéene di ñaanal Serigne Fallou ak taxaw ci bis bi nga xam ne lu mu ko war lool la eh, ci ban façon lay ñaane ak teggi ni ñaan ak Baol Média FM yooyu ndax loolu it yaakaar naa moom dara ëpp ko solo ci bis bi moo tax ñuy fàttali bis bi Sëñ Tuubaa moom ñaan ni mu ko diglee li ci li ci jëkk mooy jàng alxuraan mm-hmm. ndax ku ne xam na ni 1927 ak léegi yàgg na lool mm-hmm. te bis bu set mm-hmm. ñeenti kaamil yi ñuy jàng Tuubaa musta manki ñeenti kaamil yi ñuy jàng Njaaréem musta manki te ba mu fi nekkee la ko tàmbali woon di digle ñuy jàng alxuraan samp ay daaray kaamil su ko defee nga xam ne loola murit bu ne loo mën a nekk war nga xëy jàng alxuraan Baol Média FM alxuraan moom da nga koy teg fee ba noppi ndax Sëñ Tuubaa da ko def alalam <coughs> <coughs> <coughs> wirdi xaala bay niwu bay na maa yu si u xaala mhm. képp ku bëgg dara wala nga ragal dara mhm. ba dee jàngal xuraan rek nee na da ngay tàggoog moom mhm. bihi saala xam mi xiina am saktuhu huda sa uhdi bihi nafsi wa uhdi bihi saxba hmm. nee na nee na alxuraan bi ma ko jàppee moo ma gindi ci lay gindi sama bopp di ci gindi ñi ma àndal <laughs> ah, <laughs> waaw <laughs> nee na itam kitaabun bihi masaktu mustaxniyan bihi nee na moo ko tàggalee ci njàqare jële ko ci yoonu géej googee ñu ko jàppoon xam ne alxuraan mën na lu ne waaye nag moom danoo andil filtre ci alxuraan loo xam ne mooy ay xasida su ko defee boo jàngee alxuraan ba noppi da ngay jàng ay xasida ndax xasida mën na lu ne su ko defee li nga bëgg a jiñ ak li nga bëgg a ñoddi yëpp ngi ci xasaayid yi loolu yi ngay wax li ngay yéene lépp loo yéene rek mën na ko mën na koo dogal su defee nañuy sax ci jàng alxuraan jàngal ko alxuraan jàngal ko xasaayit yéeneente lu baax loo mën ci berne nga def ko loolu dal mooy mooy mooy mooy mooy màggaluk Tuuba siyaare barab yu tedd yëpp ak ñu tedd yëpp màggal gu ne rek loolu moom la làmboo. daal li mu wax ne tax si moo bi sunnati yàqu dinaa li jan bis jaat ñu màggal ko ci sunna daal. waaw waaw. Uh, anam yooyu nga wax rek jàng alxuraan yaakaar naa ci sunna la. <laughs> waaw ci sunna la waaw. Mm. ak def salaatu ala nabi mm. ak yeneen yi ci aju yëpp. maanaam mooy lépp loo xam ne rek. Mm. sun sunna da ko santaane. wala mu rafet. <laughs> tubaarkaal bàyyi lépp lu sun sunna santaane wala rafetut ci sunna. <laughs> tubaarkaal eh, jërëjëf. kon xam naa sëñ bi dafa am loo tudd nag te xam naa ne ndax wax nga sëñ Fallou lim daan financé ak lim daan def ci jumaa jéeg yooyu te sun kala place gi ñu ci mm. bi mu ku liggéey lu toll nii mm. euh, loolu loonu ci mën a dindil rek wan ne lan moo doon itteem ak mm. euh, lu mel noonu daal danoo jàpp ne ku ko yoree war nga booy dem bàyyi fi lu toll ay alal yu bëree bëri mais sëñ Fallou gis-gisam dafa weesu foofu mm-hmm. ndax nee na yow ci sa bopp mm-hmm. boo bëggee xam sa valeur mm-hmm. da jàpp ne yaa gën a valeur yi xaalis waaye feeg yaa ngi jàpp ne si jëmm xaalis su ko gën a waloore rek ci ngay def njombe ci ngay jël yi jàmbur ci ngay sàcc ci ngay fen Baol Média FM ba am alal rek yow moo mooy si it su ko defee nag nee na moom li mu doon daraja woo mooy alxanaatu maalun laa yen fatu alxanaatu yonent bee ko wax mm. ne alxanaatu doylu mm. maaloon mooy alal ji nga xam ne laa yen fatu du jeex mukk eh, eh. suñ fallu ni man de dégguma ko noonu mm. ana nu ngeen koy firee ñu wax ko ko mu ne alxanaatu sutura maaloon mooy alal ji nga xam ne du jeex mu mu ne ana luy sutura mooy loo soxla mu faju te kenn du la xamal dara <laughs> ku defee ngay lekk lu lew mm. di wax loo xam mm. di def loo man Baol Média FM eh, sa digganteeg yàlla mm. dara sa digganteeg nit ñi dara <laughs> nee ku def lu dul lool nag yàgg caag <laughs> caag dama war naa leer <laughs> xam naa loolu sëñ bi dinañ indi. Hmm. ndax baati ikkamam yooyu mu daan wax daf noo amaloon solo lool te am na bu hmm. ma ci dégg boo xam bu ma solo. Hmm. nee ku mas dikk ne ko dama oto bii de dama koo leb. Eh, tàmbal la mu ne ko kon del dawal tey dawal rek. del dawal oto xam nga <laughs> dégg nga. xam nga loolu it alxuraan ko mooy oto ila sabili rabbika bil xikmati wal mawisati l xasanati loolu la suñ fallu comportement comportement woon ma bi dafa dafa saxoon ci làmmiñam ba nga xam ne buy kaf sax lépp xekk ma lay doon <laughs> nga xam ne bil xikmati wal mawisatil xasanati mm. wa jaadilhum billati hiya ahsan mm. xam ne loola lislaam ko santaane jullit bépp noonu la war a mel bu mm. defee nag ñoom ne leen suñ tubaa yare woon moo tax euh, tapon bi seeni cër da ciy làggi ba nga xam ne loola rek la ñuy xam ñoom mooy comme noonu mu ko waxee woon rek ne xam nga moom li li mboolem lim jàng lépp ginnaaw suñu ndaam Abdourahmane Lo mi ko jàngal alxuraan. Mm-hmm. lim xam lépp suñ Tuubaa ko xamal ak maam Thierno Birahim mm-hmm. ak suñ Mor Diarra. Mm-hmm. yaa nga xam ne ak bu ci kenn tegee mooy suñ Mbàkke Busu. waaye nee na noonu mu koy waxee rek ne suñ bàyyi Thierno. maag sama mag ju baax ji. dañoo jàngal bañ ne ar. mu yar ne ba ne ba nër mu yeenu bañ ne jaar. waaw. <laughs> <laughs> Baolmedias FM boobu. dafa doonoon aw doxinam di ay waxinam di dundam di nelawam di léppam nga xam ne mooy ni nga xam ne noonu lañ tàmm ci jullit mhm. nee nañ boo doon nelaw ñu ne la këpp-këpp sax mhm. bu ne bëreet rek la nga nekkoon maanaam na ko ñëpp xam <coughs> mooy li xaddis boobu ñuy wax te di ko duural ab xaddis te xasanil basri moo ko waxoon mhm. mooy laysal imaanu bi tamanni walakin ma waqara fil xalbi wa saddaqahu al amal nee na imaan du caagee ni néeg néegi nii rek walla ngay def loola neex mooy li nga xam ne da day sax ci sa xol Baol Média FM say cër répondre ci say mu applique waaw xam ne loola nag moom lañ war a def ci fànn yëpp nga xam ne booy wax ak booy jëf ak booy yéene li Sëñ a waxoon ne bépp murit foo nekk lépp looy wax lépp looy yéene ak lépp looy jëf na feeñ ci li nga nekk su ko defee nag ñoom ca loolu lañ leen yaroon mm-hmm. ba cëree làgg yi ci ba nga xam ne lépp lu ñuy def mm-hmm. day nekk ci bil hikmati wal mauisatil hasanati Baol Média FM. sëñ moom naa bunt bi sax duñ ko tëj waaye tuddoon nga fi ay jëmm yoo xamante ni ku mel ni Cheikh Moustapha euh, mi nga xam ne mooy taawam te sosoon bis bi te addis bi dégg nga ni mu ko waxee euh, ak rakkam ju baax ji ko fi wutu muy ma du lemin ñoom it fàttalikuwaat seeni i jikko euh, du wàññi dara xam naa baat bi nga wax nag bu am am solo la sëñ bi man de dugg na ma lool ne sëñ Fallou na la sa jëmm gënal xaalis. boobaa <laughs> nga nga <laughs> nee na loolu hmm. day dugg ci doylu gi suñ borom digle jàmm bi Baol Média FM ñaareel ba ñoom itam tasawuf hmm. niñ ko dunde hmm. du caagee nii rek nit ki dafa war a jóg rek ci di xëntewoo ngir am alal rek parce que alal du dara balaa ëllëg bala nga balaa nit ki am téeméeri at day faatu bàyyi ko fi juróom-ñaari mètre percal rek moo koy topp xam ne yow bul fexe ba alal bu mu tax nga jaay sa ngor bu mu tax nga jaay sa diine bu tax nga fàtte yàlla itam bu defee loola lu am solo la te loolu mooy alxanaatu mooy doylu doylu bi boo ko xasee def alal du la jaralati jéggi benn jéego su ko defee lu mel ni ay ñam ay lekk ay mboolem yi dabu ci àddina du la ko jaralati su ko defee nag loola mooy as suhdu awit taxasuf waaw day daal dellu ci tasawuf nga xam ne liñ leen yare woon ndax ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa bi muy nekk fii booba ak bi muy nekk Mauritanie rek ma jox la ci benn misaal am na boobu suñ felloo nga fa mm-hmm. nee na dañoo nekk Mauritanie mm-hmm. am gàdd goo xam ne dañoo dikk di jébbalu suñ Tuubaa andi ay te fekk boobu mm-hmm. Baol Média FM nit ñi jógewut fii rek fekk leen fa ak i sangal ak ay baraay ki ay ay xar yoo xam ne dañuy rey xar mi seel ko togg ko ci sànqal ba mu doon aw wogg ñu yóbbu ko moom lañ daa yóbbaloo boobu wala muraake wala yu mel noonu nee na loola xaw faa manqué tuuti ñu ñu toog di néggandiku mm-hmm. am naar yu dikk jébbalu ci Sëñ Tuubaa mm-hmm. defe naa mooy xaw ma wala daymaan ba ni daymaan wala fii Baol Média FM yoon yi nee na ñu dikk mooy loolu mu doon nettali ci màggal gi daaw jéeg xam ne baatin lañ moo leen andi woon ñu dikk indi addi yoo xam ne xar yi ci nekk rek mm-hmm. maanaam kenn xamul nuñ toll naka ñu tàggoo rek mu daan ne demal joxal ma ko Cheikh Sidi Baba ne ko addi rasulullah sallallahu alayhi wasallam te nee na xam nga loolu mooy ak doylu ndax bu dutoon loolu mën nañoo rey ci xar yi wala ñuy naan ci soow yi wala nangam <laughs> su ko defee doylu gi. dafa dafay weesu bëgg gi waaw sa bëgg maanaam sa doylu da ko war a weesu. ko defee li la ñor itam dalaa war a ëppal loolu mooy yonent bi da gën a ñor xar yooyu ak yooyu su defee nuyu itam nanu suñ tubaa gën a ñor ci ay alal ak bu defee maanaam ñu bokk ci suñ Tuubaa mooy sët yi mm-hmm. ak taalibe yi mm-hmm. nañ xam la sosoon yoonu murit bi mm-hmm. ñu jàpp suñ Tuubaa jàpp sëtam yii fi nekk te sët yi itam jàppante maanaam bu ñu bëggee jàppante kenn ku ne na xool suñ Tuubaa ci sa morom defee rek maanaam fàtte sa bopp boo ko defee rek maanaam lépp baax waaye bu kenn ku ne ne manoom lam nii <laughs> lépp yàqu su defee nag loolu nañ ci bàyyi xel taalibe yi xam ne ñag bu ne lu maanaam barab bu ne la fay ñuulal si nag ndax mm-hmm. ñi Sëriñ Tuubaa bàyyi kat mm-hmm. mm-hmm. maanaa ñooy lépp ñoo fi jëmmi Sëriñ Tuubaa dañ leen jàpp Sëriñ Tuubaa di leen xoole Sëriñ Tuubaa te manko itam ndax murid lu mu bëgg rek man na ko fi fan yi rek laa koy wax naa murid yi buñ manko woon ne nañu wut Baol Média FM kenn ku ne joxe ñaari junni par weer saxal ko maanaam luñ bëgg rek mën nañ ko loola ay cent millions ki deux cent millions lay doon su defee mën nañ weer wu fi nekkal Sëñ Tuubaa génn ko def ko ci jàkk yi wala hôpital yi mm-hmm. wala mu def ko ci ndox mi wala courant bi wala ci tëli dëkk bi wala ci jumaa ji mm-hmm. su ko defee te day simple mm-hmm. ndax ñi ko mën day bari mooy ni ñuy def ci daayira yi rek jàmbaar lañ lool ndax murit kenn mënu ko ndax koo xam ne day joxe alalam di daje foo xam ne dafa sori Touba di joxe lam am lépp ba noppi jooy boole ci di ñaanal sëñ bi xam nga loolu kenn mënu ko wees sax waaye nag nañ gën a organiser gën a mànkoo su ko defee li ñuy def li ñuy joxe nañuy mànkoo ñu bañ caa jiital bëgg àddina jiital ci doylu googu jiital ci suufeel sa bopp jiital ci liggéeyal suñ Tuubaa su ko defee fu ñu ko fi defee rek maanaam lépp dana baax jërëjëf suñu message ba moom yaakaar naa ne it woon nañ ko lool sax rawatina jamono ji alhamdulilah bi nga ko dugalee ci waxtaan wi ndax wax dëgg yàlla ñii fi nekk rek ñooy Baol Média FM suñ tubaa jóge ba tey suñ tubaa mi ngi ko tàmbalee woon ci ñaar fukk ak juróom-ñett yi mu doon laaj hmm. daf ne woon bii tabax jumaa ji buggut leneen dem mu ne fépp fu murit sax bopp na ngay joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett su ko defee mu tabaxee ko jumaa nga xam ne defe naa ne ca lañ tabax jumaa yi njaareem ca tàmbali ji ba mu sori nga xam ne moom moo ko dajale woon moom suñ tubaab dégg nga te loolu leen joxe dimbale na ci tubaab yi moom joxe na ci téeméeri junni ñuy dimbale ko armée française ak nguuru Baol Média FM xam nga kooku soxlawut alal yi tubaab ak ak ñeneen su ko defee manko googee moo war a am ba nëgëni ñu xam ne Sëriñ Tuubaa moom fi newoon mooy sëtam yi fi nekk su ko defee loolee liggéeyoon jumaa ji mm-hmm. mën naa liggéey dëkk bi mm-hmm. mën a liggéey jumaa yi jumaa yi laa jumaa yëpp mën na ko liggéey mën na liggéey hôpital yi mm-hmm. hôpital bu Matlaboul Fawzayni bi murid yee ko tabax te ba tey tey lañ gën a ëpp positif boo seetee ñiy defar courant bi ak ñiy defar yëpp tey lañ gën a ëpp positif te loolu day dolli ko ba faw ndax Sëriñ tubaa ay mbiram day jëm kanam dellu gannaaw mukk ceer bi koy xamee mooy Baolmedias FM day mel ni yow Sëriñ Tuubaa day gën a ñëw ci yow taalibe yi lay jàppit day mel ni dañuy ëpp pës dafa yàlla na yàlla saxal loola te defal leen tawfeex joo xam ne hmm. képp ku bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu jàppandal la la nga koy liggéeyale hmm. ñi fi nekk itam kenn ku ne àggale la bëgg a liggéeyal Sëriñ <laughs> dafa mel ni wax ju sa mbokk waxoon sëñ Cheikh ba sëñ sëñ Modou Baara mu sëñ Abdou hmm. dafa wax ne sëñ tubaa ak jamono danoo àtte wa jamono dafa gën a naqari di gën a naqari Baol Média FM Baol Média FM léegi la pësoro yi gën a bari xaalis bi gën a bari lépp gi bu fekkoon jamono dafa neex sëñ tubaa neex kenn du xa ràññee jamono sëñ tubaa waaye fi ñu toll sëñ tubaa woote naa ak jamono. li gën a gàtt mooy képp kuy liggéeyal sëñ tubaa mm. wala nga sax sant gi sëñ tubaa bëgg. Mm. doo xam naqari jamono. ndax jamono du dara ay tabax laa ki mbedd ki ngelaw képp. <laughs> waaw déggoo li sëñ tubaa waxoon. Mm. dafa am ku dikk ne ko. yi dama bëgg nga ñaanal ma xaalis hmm. nee na mu ne ko auzu billaahi mina Baol koy sëllax suuf hmm. ba mu demee bokk yee defee na day torox hmm. ñu dikk indi ay addi jox ko mu ne lu ma waxoonati ñu ne ko ah nee da nga ko sëllaxoon suuf ne ko auzu muslu ko ah. mu ne mu ne lu lu mu waxoon ba ma wax ko mu ne dana la woon nga ñaanal ma ma am xaalis mu ne xàkk saa looloo tax ndax xaalis tubaab bi rek ko ay këyit yu tubaab bi melal maanaam peinture rek defal koy màndarga <laughs> <laughs> seytaane dugg ci moo tax ma di ko musut waaye li nga xam ne yàllaa ko sàkk muy <laughs> mm. muy muy taw yeeg mm. ñax yi sax ci àll beeg li nga ji muy sax ak garab yeeg natti Baolmedias FM mukk ci àddina kenn xamul fu mu yem Hmm. <laughs> bu fekkente ne xaalis am ñax la hmm. maanaa kenn du ñàkk xaalis waaye tubaab bee ko limité <laughs> ne nangami milliards yi wala nangami millions yi moom la ñuy liggéey pour Sénégal wala pour France hmm. kooku fekk génnuñ ko maanaam doo am leneen <laughs> defee nag loolu du dara jërtu jaay sa ngor wala jaay sa taalibe wala nga fër-fëri ba faatu te boo faatoo defoo ci lu baax it kenn yàlla rek xam bu defee nag te suñ tubaabam dafa bëgg murid yi ba nga xam ni loolu ñuy wax tatay ful ahmad Baol Média FM boo demee Madinatul Munawwara ren rek laa koy wax bi ma demee maddina bi ba siyaare ñu dikk di ma laaj yu mel noonu ma ne leen bëgguma fi dara xanaa liggéeyal ci Sëñ Tuubaa rek ndax mbooleem li li li ñuy wuti fii Sëñ Tuubaa fàggul nanu ko <clears throat> Sëñ Tuubaa lim fàggu mooy foofa dañ ne boo jullee benn rakka wala nga def fa benn yiw li ñuy wuti Màkka ak Madina gépp mooy ngir ñu fëlal la say tuyaaba waaw su ko defee yokk tuyaaba yi ba nga mën a am compte àlaxira mm-hmm. nee na boo jullee Madina wala nga jàng fa alxuraan wala dara ñu def ko junni yoon. Baol Média FM. ñu def ko téeméeri junni yoon. Sëñ Tuubaa nag nee na loola na nga koy def moom di julli fii di jàmm yàlla di def lépp di mag waaye dërëm boo joxe. dala koy multiplier sept cent mille fois. nga xam ne kamasali xabatin an batat sa sanaa moom la fulaat moom ñaan suñu borom defal ko taalibe yi ndax nee na am na ñu sàggan. am ñoo xam ne danañ yéene waaye dañ ko mën su ko defee loolu lépp nag loolu dañ yokk seen tuyaaba ba nga xam ne ajran sawaban wa jasa daal di dikk moom nga xam ne yool yooyu yëpp yàlla da koy booleel defal ko taalibe yi nag ci benn dërëm ki nga xam ne benn dërëm rek la am ndax loolu ma lay nettali ci téeméeri junni yi mm. boroomu benn dërëm la fa dajal ñuy siyaare Sëriñ Tuubaa ñuy def rek ñu sës ci moom mm. bu borom dërëm bi dikkee bay jege si rek ñu puux ko mu dellu moom itam ruus naa dikk mm. wala mu ragal a nuyu sëñ bi ci dërëm bi kee yor téeméeri junni yi nag biñ ko gisee mu yor mbuus ñu daal di koy fàggal mu ñëw hmm. nee na bi mu dikkee eh, borom dërëm bi suñ Tuubaa daal di koy njëkk jox loxo hmm. nangu dërëm bi wane fonk naa la mu teg ko ah. ci mu teg ko ci kaw mbu mi hmm. daal di door a jox loxo kee mu ne jëyi téeméeri junni yi mu ne ko tegal ci suuf daal di fab bant bi teqar ci juróom-benn fukki junni yi ñeent fukki junni yi mu fab ko teg ko ci dërëm bi xamal ko ne yéen ñaar yéen a ndax yow mii boo amoon téeméeri junni joxe ko yow itam téeméeri junni yi nga joxe yàlla nangul na la ko yaa borom dërëm bi yem képp fi defee ndax yàlla fulal na ko lool mu ñaanoon ñu nee nag fulal nak ko ci Baol bind ko leetar ne ko euh, ataytu ko ma fi suratil xadri mooy alfu saarin bi alfu dirham <laughs> nga xam ne ñoom te ndeke kenn ku ne sab leetar daa ñëw Sëñ Tuubaa joxe junni te yëgowuñ mook Sëñ Fall <laughs> eh, eh, eh. <laughs> mu ne mu mu mu tontu leen kenn ku ne ne ko nag dimbali ngeen seen bopp dimbali murid yi hmm. ndax bii ngeen ma ko joxee rek ma xam xeeb gi ngeen ko xeeb hmm. laa ñaan suñu borom ba mu fulal leen ko ba kenn ku ne loo naroon a jàmm yàlla mu defal la ko ci addi hmm. te addi yi dana leen fegal addi yi dana leen fegal ay lor addi yi dana leen musal addina ak alaxira bu defee lool loolu leen wax musal leen ci sawara itam xam ne loola mooy mooy li ma la wax ne day remplir li nit li nit ki sàgganoon wala lim mënul lépp ci xeebo gi ak bari gi ñooyam positif bi rek moom am solo hmm. <laughs> suñu bi kon xam naa ñu toppi waxtaan ni ñin tuddoon léegi danoo daa itteel lool muy Cheikh Baol Média FM ak sëñ Alaaji Mouhamadou Lamine Bara te tudd nga ko léegi te ndeysaan njabootam ngi di ko fàttaliku waale ndax moom it daanaka ñoom ñëpp daal ni sëñ Fallou li mu ji jiwoon sëñ tubaa moom la ko sëñ tubaa fayaat ci njabootam ndax ci ay discours am daana wax naa man bëgguma doom juy doon nu baayam bëgguma woote ak seex sama lépp sëñ tubaa waaw nanguwuma dara waaye ñoom it doomam yi seen léppam ci sëñ fàllu rek ñoom it wax dëgg seen dara feeñul léppam sëñ fàllu rek loolu mën a fàttali seen i jikko taxawaay yéen ci amoon ak yooyu ci bis bu màgg bi mu sëñ fàllu noonu nga ko waxee daa wax ne moom léppam Baol Média FM nanguwul nga ne fàllu fee ni sëñ tubaa la meloon ci yàlla ak yonent wallaay ndeysaan ndax dégg ñu ne am na ko dikk ne ko mhm. di wax rek nga xam ne wax <laughs> simple rek ne ko man day mbàkki mhm. saa bu yàlla ak yonente bi wéyee mhm. suñ tubaa ne bërit ne ko hmm, bu dikkee doom fekk <laughs> <laughs> xamal ko ne ko moom fa yàlla ak bi jëm fa la jëm suñ fallu noonu la meloon maanaam moom dafa doy woon suñ tubaa bëgg ko ba nga xam ne bëggul ñuy tudd suñ fallu fee di tudd suñ tubaa waaye fi ne ku tudd suñ tubaa rek sa xel dem ci suñ fallu ko defee mooy suñ tubaa waxoon ne ayaa xaadimal muxtaari laa tan sa sax baxu fa man yan sawam fal matxu matul xatta su ko defee loolu moo tax ñooñu duñ leen mën a fàtte ndax ginnaaw suñu fàllu dafay jógee bàyyi leen fi ci bu buñ defutoon lii itam kenn du leen ci yedd waaye ñu taxaw ko ci wutal ko bis bu mel nii te bis bi yaakaar naa ne bis yu ko gën a màgg ci lislaam sax bëri lu waxuma la ci Sëñ Tuubaa ci bopp Baol Média FM daa mel ni Sëñ Tuubaa loolu yàlla wuyu na ko ci maanaam lépp loo xam ne bu fi nekkoon def ko rek da koy indi ci njabootam gi ñu defal ko noonu lañ taxawee xam ne dañoo bëgg suñ toll bu ñu seen bopp dara su ko defee seey ca moom nga xam ne kenn koo ci tudd suñ toll day jooy fii man mii jaxasoo nag ñoom nga xam ne kenn ku ci tudd suñ toll ñaari yoon rek day tàggoog sagoom ko defee waaye suñ toll fay na leen loo xam ne ñoom itam euh, kenn ku ne teg na ci bëtam ci biir bëgg ma waxoon rek suñ tubaab moom képp ku bëgg rek dalay fay nga xam ne boo tuddee Cheikh faal Fall wala nga dem ci mu bee rek xam ci lu wér fii ak cheikh isaa jenn ñoom ak mboolem cheikh yooyu yi nga xam ne sëntuñ mbàkki sax kenn ku ne defal na la lu kawe si njot kawe si njot ña ànd ak te noonu lañ ciy jotee àllaaxira itam su defee def ko ci doom yi def ko ci sët yi loolee nag noonu la suñ tubaa def ci njaboot yi suñ toll yi def ko ci njaboot yi suñ Modou Moussa suñ njaboot yi suñ yi ñoom mboolem njabootam yi gis nga suñ Saliou mi fi mujj rek ci la suñ tubaa def ci Baol karaama yi ci ëpp ci moom la mujj fi ko defee moom it feeñal fi loo xam ni mm. nga xam ne ndokk bi mu du ab waxkat la muy mm. ab yëngatukat <laughs> waaye boo waxoon rek mu si <laughs> ndax moom <laughs> su ko defee nag ñooñ ñëpp dañ leen di fàttaliku suñu laat gis nga moom itam ni mu def màggalu Tuubaa yeesalaat jumaa ji mm-hmm. suñu Abdu dikk suñu Saaliwu dikk moom mm-hmm. mujjee fii ba noppi mm-hmm. indi lépp nga xam ne suñ tubaab bi mu koy ñaan Baolmedias FM tuddaale na ci aw turam tuddaale ci sët yi koy wóotu tudimu al a saalih ah surriyatan mu al amala saalih ya xadim bu <laughs> defee nag dañuy daal dellu ci lam ñaanoon rek suriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jën na bii Moustapha tëj tëjidu ku defee nag loolu ñu ñi ngay wax farlu nañ ci lool ndax foo dem da nga gis jàkka juñ tabax waaw ah, nga xam ne loola dañ leen ciy sant bu baax ndax bu fekkee Sëñ Tuubaa dafa tabax jumaa ju toll nii ñu demeen di wut leneen. Baolmedias FM. ñëpp dañuy maandu ne ci waaye suñ tubaa suñ fallu suñ tubaa da ko digal jumaay tubaa ji ñu barkeeloo kenn ku ne taba xalaat ko ay jàkk yu bari ko defee nag loola moom dañ leen koy sant te xam ne ña ngi ci waaroo maanaam suñ fallu jaaroon ña ci cay jéem lañ man wala jaar nañ ca nañ ko mëne kon nag loola na leen ci seen maam fay suñ fallu defal leen ci li kaw seen jot taxawu seen njaboot yëpp itam ak njabooti suñ tubaa yëpp ak sët yi kenn ku ne Baol Média FM sa waajur ak Sëñ Tuubaa nga def ko nanga nga ko bëggee ba lépp sotti Sëñ Tuubaa am ndam yonent bi am ndam lislaam am ndam lépp di liggéeyal daal nag ci lislaam rek muy muy yeesal googu Sëñ Tuubaa gi taxoon Sëñ Tuubaa jóg ko defee muy yees ba faaw rek jërëjëf jërëjëf sëñ bi ah kon nag xam naa ñu ngi jégalu bu baax a baax ak di la sant ci waxtaan wi rafet gi ak gi ak te dama koy wax sax wax ne eh, waxtaan waxtaankat yëpp daanaka waxtaani suñu fàllu moo ci waroon a gën a yomb waaye moo war a Baol Média FM <laughs> ndax ndax waxtaan woo ndax eh, ñi ci waxtaane benn côté rek la ñuy waxtaane jàpp ne eh, benn côté boobu rek la te fekk ne li nga waxoon léegi lépp a ngi ci moom ndax ku sàmm woon la doonoon koo xamante ni lislaam rek wax nga ko ne li mu doon jaxasoo ñi mu bokkut ak lislaam waaye kenn du ko ci def laal ci diineem lu toll kii waaw te it ku ci nekk fonkaloon na la sa diine yaakaar naa Sidi Mokhtar Ka mi ngi koy wax ne am na. ngay wax waaw. mënut a weesu doon xalif général de Mouride. Baol Média FM xam na ne baatin bi lépp a ngi ci. nga xam ne maa ngi koy nettali daaw daaw jéegi rek. ni mm-hmm. dafa am benn égyptien bu fi ñëwoon. Mm-hmm. di seet si jumaa ji. defe naa waa nguur ga foofaa ko yebal. Mm-hmm. mu dikk bi mu dikkee nag. ñu ñu njëkkee ci jumaa ji. wan ko ko mu xool ba noppi dikk fekk suñu lu ci néegu ñax bi. mu ne waaw mu ne xalifa bi lay laaj ñu ne ko mi ngi nii ngay waxal muy wax ak moom arab yu sell mu ne ko ah, man de moom man lañ koy wooyee. Mm-hmm. nee na mu ne ko yow lépp loo wax rek xam nañ ne dëgg la ndax tabaxal yàlla néeg bu toll nii. Mm-hmm. di fanaan ci néeg boo xam ne yow benn almet man na ko taal kooku loolu doy na sëkk man li ma doon wut lépp man a gis naa ko. nga xam ne diirub li mu fi nekk mus fanaan ci tabax. Mm-hmm. wala nga xam ne Ndakaar la koy fanaane wala kër jàmbur waaye yi ci gi daw fi te lam daa jëfandikoo it. fu hmm. ne xam na ko mooy li suñ Tuubaa daa jëfandikoo rek. dégg nga xam ne loolu lépp suufeel boppam. ak ñàkk gis dara ci àddina mooy warax googu ngay wax laa la bëgg a andil. Hmm, noonu ko Sëriñ Tuubaa misaale rek. naa bil bil xasanil basri yi. Hmm. xëpp liyal wara. wal insilaaxa min hawaaya wal bida xasanil basri dafa amoon wara ba nga xam ni. maanaam bu gisee kuy ñëw du xam góor la wala jigéen. xawaasul xam si yëpp dafa dem. maanaam yëg gi yëg waroon a am. bu làmbee yaram du xàmmee yaramu góor ak bu jigéen bu làmbee miir bi du ko xàmmee yaramu nit bu sexee dara du xàmmee lu kër wala saf xorom xet gi noonu nopp yi noonu daanaka nga xam ne dafa disparaître wal insilaaxa min hawaaya wal bida noonu la suñu tool defoon nga xam ne moom bànneex bi da ko notoon ba nga xam ni daanaka faaleetud àddina ak li ci biir ko defee bokk na ci loolu ngay wax ci makk mm-hmm. am na makk ñaari weer am madina weer am makk ñaari weer mosu faa ay daal te ci biir barab balay tëdd wala ci biir kaaba bi Baol Média xusoo wala taxasuf sooxdu bu defee waraa bi daal di dikk mm-hmm. xam ne maanaam biir màkk gépp ak munaak arafaat ak yëpp mosu faa ay daal mm-hmm. tànku neen lay def biir Tuubaa gi itam mboolem lu jege suñ Tuubaa suñ tubaa bi muy door a wàccu liggéey di ñibbi si Tuubaa mook mu Masamba rek ñoo saxoon fi xam ne sëñ Masamba dafa sañ ci penc mi di yendoo jàng mm. sëñ Fallu dese lu woyof mm. di yendu fii ak barab bi mm. fanaan na fi juróom benn weer ci biir barab bi waaw xam ne maanaam amul fenn soxla Baol Média FM ci suuf lay tëdd <laughs> xam ne ku defee moom war a am kenn mënu ko kenn mënu ko mànd xele waaw bu defee loolu nag dafay war a jaaj ji taalibe yi mm-hmm. ndax képp kuy fonk sab wala sa waajur walla sa baay wala sa maam mm-hmm. dangay war a roy ci moom uswa xasana ji daal dikk mm-hmm. xam ne roy googu mooy roy ko ci dox yi nam yëpp ku ne xam na ne sax moo nu indil xéewal yi ban di ko xéewal Baolmedias FM yi lekk yu neex yeeg yëpp mm-hmm. waaye du tee nga bàyyi xel moom amoon na ko te teewut mu daa daananteeg bakkanam <coughs> lim nar a yàq mu di ko dimbalee nit ñi di ci jublu liggéeyal yàlla ak kontam boobee ci foofu mu baril ko ba nga xam ne <laughs> ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu <laughs> indallah waaw sëñ daa am lu sama xel dem léegi te ci leen la ñuy tëjee jataay bi mu itteel ma sëñ Fall damaa gis ne doon naa la ko laaj léegi ne la ñu jaxasoo woon kilifa diine yéeg ak yeneen turxu yeeg yooyu ci des waaye damaa gis ci njabootam. Baol Média FM ñoo xam ne daf leen a tudde doom ku mel ni Cheikh Ahmadou Badawi ak Cheikh rafaax yi nga xam ne ñoom dëkkuñu woon ci réew mi waaye ay nit yi diineem lan foofu it bëggoon naa <laughs> ikam bi du ma xam sax waaye euh, loolu daal dafa ma kii loolu ma xam ne suñ fa li muy def lépp am na cëslaay rek am na lépp daal. te ñoo ñit xam naa nit ñi dese nañ leen a xam lool eh, ginnaaw bu doon suñ fàllu mi sax xam naa ne ñi leen di xam du bari ndax ku tudd si du Badawi sa xel dina dem ci añ na nga gëstu ko si Ahmadou Rafaay di nga gëstu ba xam fan la lan la woon. Baol Média FM. xam nga daa jaxasoo suñ Tuubaa ba daanaka neexuñoo tàggale. Mm-hmm. ñaareel bi itam dafa ràññee woon yu bari mm-hmm. ndax mbooleem doomam yi mm-hmm. boo koy lim suñ Modou Cheikh Moustapha la ko tudd. Cheikh Mouhamadul Amin. Mouhamadul mm-hmm. mm-hmm. Bassir. Mm-hmm. ba ci am na ci ñoo xam ni. ëpp du nangam lañ leen di waaye waaye Sëñ Tuubaa la leen tuddee. waaw xam ne damay bañ a àgg ci tur yi ah. <laughs> mu tuddee ko yanant bi. Ah. waaye moom dafa jaxasoo ak Sëñ Tuubaa ba. suñu ma ko wax. Baolmedias FM waaye nee na képp ku Sëñ Tuubaa waroon a tuddi doom moom moo moo koy defal. noonee mu ko demalee màkk mm. képp ku suñ Tuubaa waroon nga xam ne bu fi nekkoon mm. dana tudde kooka daf koy àggale loolu la jublu ci loolu mm. waaw ñaareel bi itam ñooñu feeñu ko am am lu dox seen diggante ci seen digg ak suñ Tuubaa ba yëg googee mu am daanaka gisu leen <laughs> <laughs> waaw <laughs> dafa am yoo xam ne boo ko leeralee rek day xaw a. Baol Média FM. naa xoolum tuddaa wala tun sar la ay kon sëñ bi doy na sëkk liñ ci bëggoon a am na kon xam naa ñu ngi lay sant bu baax a baax. waaw am na tur yoo xam ne fii nii boo boo ko déggee ci ay da ngay defee ni ñeneen la ko tudde te yonent bi la ko tudde doomam yëpp yonent bi leen defee am na ci ñaar wala ñett ñoo xam ne dañuy defee ni ñeneen lañ leen tudd ah. fekk yonent bi la ci jublu moom eh. nga xam ne dàkkental wa rek wala ah. oh, mooy dikk loolaay sax <laughs> waaw. <laughs> Baol Média FM bi yàgg na lool maa ngi koy jégalu bu baax a baax ndax waxtaan wee neex <laughs> te riis donc <laughs> daa neex te rek. <laughs> waaw rajo bi mu am réussite ci lépp am ndam. yéen ñu liggéey it suñ Tuubaa rek ngeen fa nekkal. ak ak askan wi rek. su defee loolu yàlla defal leen ci ndam yéen itam. su ko defee ngeen di moytu bu baax rek. te nga xam ne lépp lu ngeen wax na ngeen ci jublu yàlla. lépp lu ngeen di yéene ngeen jublu ci yàlla lépp lu ngeen di jëf. Baolmedias FM. su ko defee rek lépp dana baax. waaw. Eh, jërëjëf kon sëñ bi ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm eh, ci waxtaan wi ni mu amee solo ak eh, ni nga xam ne ni nga ko indee ñu ngi ñaan yàlla ak sëñ Tuubaa sàmm la gën la fee guddal sa fan ndax wax nga léegi ci suriyatan ñu nga doon wax waaye duñu yem ci suriyatan ji rek tayibatan ji lañ ciy teg ndax wax dëgg yàlla mooy sa jëmm ji te waxuñu ko ngir kii ñi la xam ñëpp lool nañ la xam te yàlla yal na yàlla sàmm la guddal fan wi te wéral la te bokk ci ñuy àggale liggéeyub sëriñ bi ba fu mu soob fu mu ko soobee. Baol Média FM asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu doon ay ay jaami suñ Tuubaa yu koy liggéeyal rek. Mm-hmm. ay taalibeem yoo xam ne. buñ sañoon rek bépp jéego buñ jéggi rek liggéeyal suñ Tuubaa lañ koy def. bañ koy fekki rek. defee ñuy ñaanal ñëpp. Mm-hmm. képp ku ñëw ci màggal gi mm-hmm. eh, su ko defee yàlla faj sa aajo mm-hmm. defal la tawfeex mm-hmm. ak sutura ak teraanga ak yërmande ak njéggal nga xam ne boo delloo itam lépp loo ci sàkku ak lépp loo ci ragal rek sans borom defal la ko Baol Média FM barke Sëñ Fallu waaw jërëjëf <laughs> ñu ngi sant bu baax a baax di la gërëm ni ma ko doon waxee léegi wax yàlla fan lay fi la niin ñëpp di xoole ak ki nga xam ne ñëpp nongul nañ ko ak taalibe muy sëriñ Muntaxa foofu rek lan lay xoole ndax mun taxa moom yoon wi ñoom ñëpp a ko nangul seen ak eh, dégg naa sëñ Abdou Fatam sëñ Fall mi wax ko ko luy daanaka moom mooy soññ ci taalibe sax daanaka <laughs> bu ñuy góorgóorlu dañuy roy ci Baol Média FM boo dee boo dee góorgóorlu da ngay roy ci jàmbaar yi bi nag am na ci ñoo xam ne ñoom ñoo nuy soññ ci ak taalibe nga xam ne seen jëmm rek comme noonu ma la ko waxoon ne suñ Fall nee na ab sëriñ noonu la war a mel mm-hmm. boo ko ne jàkk mm-hmm. sa xol da ko war a sopp boo jaxasoog moom du too bëgg a tàggoo teeg moom bu faw su defee loola mooy ak bi su defee nag képp ku ne mel ci waa kër Sëriñ Tuubaa rek mm-hmm. noonu dañ lay def ni jëmmi Sëriñ Tuubaa su defee rek te ñëpp ni mel sax rek nañ gën a góorgóorlu rek tudd tur da doon mën a ñàkk rek waaye boo tuddee kenn ñëpp nga tudd nga tudd ndax ñëpp ñëpp ñëpp ah. noonu lañ mel ci man ah. kenn ku ne rek noonu laa mel moom jërëjëf yi kon li moo doonoon seen spécial ci Cheikh Mamadou Fadal nañ leen xaar ci téléphone bi incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضه jamono yi Baol Média FM mi ngi lëkkaloog Baol Média FM 2 ñuy ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yii su ngeen ñu bëggee wéy di déglu nag ànd leen ak ñun ci suñu site bii di 3w point baolmedia point net wala 3w point mbacke baol point com wala sax ngeen ànd ak ñun ci tuneen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi usu ayatan la tura li xayri mujisatan baana li usni xayri